kenn dootul am aafiya looloo tax nag ma ne waxu procureur sax taxu woon a jóg waaye procureur dafa wax loo xam ne ay wax yu teguwul ci dëgg la may wax sénégalais yi nag procureur bi doon wax tey muy baaxum ku ma xam la ma xam ko daanaka sama mag la ndax yàlla dafa def rakkam bu mu bokkal ndey ak bàyyi doon sama xarit benn bakkan lenke ñu ànd jàngandoo première année ba quatrième année université bu ñu jógewaan université ñëw vacances Thiès këram cité la bi dama fa daan dem toog rakk ji da doon ñëw seet si ma ñu dem ba mu doon affaire famille day day ñëw fii sama kër daan na fi ñëw daan naa ñëw këram fii à côté procureur baaxum bi waaye juram bu jigéen feebare ñu entré ko fii Ndakaaru sama jabar moo doon togg añ chaque jour ñu yóbbul ko suñu yaaja ba keroog ni ko yàlla moome kon kooku xamantewuma ko su ma waxee nag waxuma ko pour yoole waaye li tax ma wax ko mooy won Sénégalais yi Macky Sall ni mu bonee ci justice senegal ni mu munee jël nit wàcce ko ba ci suufa suufa suuf imma dafa am ay dossiers yu mu téye ci yow doog la fal fi mu la fal nommé la fi mu la nommé ne li ma bë bëgg ngay def wala mu am lu mu la dig ci xaalis wala ci alal nga topp li muy def foofu la justice bi toll du justice bi yëpp nag waaye ñëpp xam nañ ni magistrat yi bañ yëpp tey sonn nañ ci justice bi gis ngeen mouvement bi passé ñi doon bañ ñëpp jël nañ leen sànni leen fu sori jël seeni nit teg leen ne leen li ma bëgg ci Ousmane Sonko nga may defal mooy warul nekk candidat en 2024 baaxum bii bu toogee tey di wax mel ni ku ma xamul di essayer gëmloo Sénégalais yi ni man Ousmane ko terroriste la dama naan àdduna lu doy waar la waaye noonu la Macky Sall mel ak justice ñi fi jox cër yépp ndomb tànk bu tax ñuy wax ci justice bi ku xam seen jaar-jaar ci wàllum magistrature di nga xam ni foofu du woon seen place dossier yi ñu am yépp ci biir magistrature ñëpp xam nañ ko baaxum xamante nañ bu baax ànd nañu ñaani jabar toog nañu naan ataay def nañu lépp moo tax moom li mu wax xam na ni du dëgg moom li mu wax bu ñu daje woon léegi li may njëkkoon mais sama ma rek li mu wax ci boppam xam na ni dëgg xam naa ni ay mbokkam yi ma séqal man buñ ko déggee tey am nañ lu leen métti te àdduna dara jarul yenn yi waaye ma dellu si li mu wax baaxum dafa wax ni benn man ba léegi ñemewul wax waxul waxul sama wax de man ci li ma wax nii dañ ma doon essayer faagaagal wax na ci El li mu bind wax na ci presse li mu bind waaye ñooñu ñëpp balaa ñuy wax man maa njëkk a wax man maa ne dañ ma doon essayer faagaagal dañ doon essayer faat sama bakkan te ñi ko def waa police la xam nga man li may wax dama koo ñeme man raayantuwuma làqatuwuma li may wax dama koo ñeme ndax koo jàkkaarlook mu taxaw yor li mu yor pompe la ko